waaw comme ni mu julee Balla noonu la mu julee rek mhm. donc bu ñu jugee foofu ñu ñëw gunge ko ñaanal ko suñu borom xale ko àjjana loolu mooy àdduna waaw nit moom bu ñu ànd moom ci bànneex bu naqar ñëwee tamit dañ ci ànd moom mhm. te ñoo bokk ndey mbaay Pape Maguette kon da ku fi jógee rek ak ak papa nu mu soree ci doom foofu ñëw masawu Balla mhm. jaare ko jaare Sa Thiès bokkoo ñoom tiis bi àdduna noonu la daal amul solo waaw tey lan ngay ñax Balla Gaye ak Sa Thiès parce que ku mel ni kilifa sa waajur góor génn waaw sant yàlla nit moom boo dundee ba yàlla def sa papa jógee ànd génn àdduna nga ànd ak moom dem góoyoo ko. ba suur ko denc ko. sant yàlla bu baax loolu rek moo ci amoon solo. Mm. li ki des li des Balla moo am na mag mais moom tamit mooy mooy famille bi mu taxaw taxawaayu papa rek papa fi mu taxawoon rek. Mm. incha allah mais tey li ma laaj sa morom mbër yëpp doon naa ko laaj fan yële passé surtout génn àdduna Mbaye Gueye tey dafa mel ni mag ñi ñu ngi dem di leen fiy bàyyi. ngeen nar a wéet Euh, jotul ngeen booloo ngeen gën a nekk benn muy nekk benn boo xam ne dafay dëggu mu bàyyi ñu bàyyi ancien lutteur rek ah mhm. lycée lycée euh, xaw ma les jeunes lutteurs ak yu kenn xamul est-ce que dëgg jotul ngeen booloo waaw nekk benn mooy yoon parce que nekk benn nag lii wane na ko mhm. ay métis ñu ñëpp ñëw nañu loolu mooy àdduna ñu ñëpp dañ bokk day bokk baay kenn mënu fi nekk éternellement rek te mag yi ñu ngi jëm mag daal mais lu leen ñaan rek suñu boom xale leen àjjana ñu fi jóge ñu fi des suñu boom dëgëral leen loolu rek moo am solo làmb nag moom il faut ñu bokk ndey bokk baay bu ngi deful loolu dara du sotti mais lii wane na ko gis nga ñëpp bëri yëpp champion yëpp ñu ngi fi bokk ak tiis bi ñu ngi ko jaare jaare Sa jaare famille bi yëpp jaare waa Géejawaay lépp